ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare lamb mbokk yi nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ñu ngi fii ci arène national tey la samedi 14 mars 2020 ñu ngi fii ci arène nationale ki ñu fi woo di Assane Ndiaye jiital Baol production moo ñu fi woo dox ci diggante Fourrière bu Grand Yoff ak Bébé Diène mu Soumbédioune mbër yi dugg si nañ léegi waaye am na loo xamante ni dégg nañ ko léegi ñu di ko annoncé na président de la république euh, dak dakkal na lépp loo xamante ni xeetu yëngu-yëngu ak fépp foo xamante ne ay mbooloo dañ fay dajaloo ngir feebar bi nga xamante ni balaa bi nga xamante ni wàcc na ci àdduna ñuy ñaan rek yàlla ñu ci yàlla muccal muccël ci mboole bi jullit ah mbokk yi loolu lañ wax xanaa ñu dugg ci biir xool ambiance bi xool làmb ji nu mu demee xool Bébé Diène lañ taxawee ci làmb ma nga noonu ak maye Barcelonam ma dugg siyaar nan Fourrière a noonu Sëriñ Bas xale bii moo jógee Grand Yoff saan ma nga noonu yor béjjënu kooba bi yor na beneen galañ génne nañ benn bu bu la di ko ko moom Fourrière ndeysaan borom numéro 10 bi Messi zéro Ahmed Babi <laughs> ndeysaan ma nga noonu sol na sol sol na mbuboom moom gis nga de ñu bindal ko ci mbër siyaar naa la. maa ngi lay siyaar bu wér. naka mu. sant yàlla bu wér. mais lépp jàmm. waa lépp tranquille kay yaa ma gën a xam. ma doon waaj bëggoon ko yàlla suñu borom dogal na ko yaa ngi ci a stade bi sa adversaire dugg si na instant bi loo yëg. waaw di sentir lu bëri rek parce que damaa génn gis waa garab yëpp génn ànd seeg man quoi xam nga loolu mooy wane ne man caaxaan waratuma si làmb tey na damay ñëw pour wane sama bopp. bis lu mu laaj. bés bi waaw ñëw jël lu ma du ma xaar kenn waaw. maanaam ndis bi. ndis bi moom laa ñëw pour jël si nii. mu ngeeg moom. waaw jëlaale ndisam moom yóbbaale. ñaari ndis ngay boole. waaw waaw waaw. ama tey dama ñëw pour jël ndisam parce que dama mobiliser moom ana supporter am boo demee nga laaj ko. ah ma laaj ko loolu. waaw nga ne ko ana say supporter moo tax ma ne ko damay damay damay jël sama ndis nangu ndisam am Assane Ndiaye ndisam la dama koy nangu. ana waa Grand Yoff. waa Grand Yoff yaa ngi na la. cey nee na yox la <laughs> waaw Fourrière a ngi noonu doomu Grand Yoff bi nee ma yox la kaay baa ngi noonu di dongali di daw ak <laughs> béjonu kooba ba nee na Grand Yoff jug leen ndeysaan benn par benn. ñoom ñëpp laa xam par benn par benn. bilaahi xale yi dañoo sonn si man bilaahi ñi aw ma seen fay bilaahi mafia bi yëpp laa indi tey. kon supporter am na njariñ ci mbër. bu baax a baax da lay dooleel barke Serigne Bamba da lay dooleel bu baax a baax kii tey lu métti laa koy teg barke Serigne Bamba. <laughs> xale baa ngi noonu sëñ Bas kaay ma xool bébé Diène tey saan gonek Medina baa ngi rëbës baa doomu Medina baa ngi noonu maa lay siyaar bébé jën. waaw laaj. tey rek yàlla may ma ndam. tey euh, naa léegi ci fourrière mu confirmé waat ne ma ndiis bi ndiisam la day jël ñaari ndiis. waaw yaagatul yaagatul léegi rek. ni doon waaj ay weer di ko waaj ay semaine ba tey ñu ne toll nga ci njàppaan ndaw nga adversaire ban yëg-yëg nga gën a. waaw léegi rek damaa kontaan mais si kanam laay gën kontaan incha waaw. nee na moom dafa indi mbooloom te yow gisul sa benn support. waaw gars yaa ñëw bàyyi tuuti rek jàpp affaire jarul wax ji wax ju lii wax ju bëri. léegi la rek nga gis lépp. nee na daa bëggoon abal la supporter Grand Yoff yi ñu ñëw taaral. bëgguma dara lu ma lu ma yor bëgguma dara si kanam léegi mu leer su ma andee supporter nañu yóbbu sama délicat waaw. tey làmb ak noonu. père maa lay siyaar bu baax. fils maa ngi lay fay. nakay tey. sant nañu yàlla bu baax. nga indi bébé Diène. mu war a bëre xale bu mel ni Fourrière. noo ko yebee. waaw li ma ko yebee rek mooy que bi ci njëkk mooy que combat bi combat bu ñu fonk la. combat gu ñu préparé sérieusement la parce que bii mooy première grand combat am donc en tant que papam en tant que tey entraîneur am li ñu ko yebee rek mooy que tey bés bi dafa laaj dal. parce que mbër mënoo ko tànk daanoo ko te làmb ndaxante la te des fois xale yi dañuy juum ci ay ay bëre moo tax combat bi tey li ñu ko ci wax rek mooy que na tey dal. xam ne ki muy bëreel nawleem la naxan na nan naxanteeg moom parce que tey ci wàllu bëre am nañ ci moom yaakaar parce que ñëpp gis nañ ne mi ngi ci mbapat yi kon li ñu def mooy que mu respecté consigne rek yàlla may ñu ndam ñu dem suñu yoon. ci lal la koy amee ci bëre wala ci xeex. non ci bëre la koy amee man moom mbër bu ma yor dama lay dama lay privilégié la del bëre rawatina nag fekk nga mën a bëre parce que mbër du mën a bëre war a bëre daan nga koy privilégié loo xeex parce que ku ku dóor ku dóor ku dóor kenn du wax ku dóor ku daan. donc ñun tey ñun si foofu tey accès bi foofu lañ ko teg li ñu bëgg rek na daan tey rek ñu xool yeneen adversaire moo tax daal ci bëre bi daal lañ gën a liggéey waaw. donte xale yëpp say doom lañ mais am na sa beneen doom boo xamante ni dafa mel ni liy riir ana balance la ci moom muy jéen lan la lan la ci carrière non du euh, loolu du dara ci carrière tey ku mbër bu fa mën a ana balance rek am na ñu ñoo xam ne tey ñooy responsabilité bi muy CNG bi buñ la joxee lamb pour nga doxal ko. waratoo toog di xaar ay promoteur parce que yéen ay démembrement de l'état ngeen bi ngeen xoolee deux mois trois mois quatre mois dara doxul ñoom tey jii ñoom ñoo waroon bouger dem gis euh, dem gis euh, le président de la république waxtaan ak ñoom mais idée yaa ngi fi tey il a les moyens da les donner les pour mu tëgg làmb yi mais kon xale bu ci année blanche tey jii ak seen jàpp leen ne du si ñoom mais lépp responsabilité CNG bi la moo waral tey làmb ji demee nii waaye nag comme que ñoom seen liggéey la la. nañ continuer entraînement yi la xam ne xëy na ñii bu ñu fi jógee ñooy yore làmb ëllëg dinañ liggéey liggéey boo xam ne mbër dootul année blanche. parce que objectif bu tey ki yor làmb lool la mooy nu may fexee ba mbër dootul année blanche parce que seen liggéey la moom la am donc ñoom ñu yor làmb dañu war a veiller ci loolu xam ne actuellement ñoom ñu ngi taaxaane carrière xale yi mais xale yi li leen war yëpp ak seen xale yi ñu ngi koy def mooy leen entraîneur sérieux liggéey CNG bi ban taxawaay la war a mën a taxawaat ba xale yi ñëpp bëre. non c'est-à-dire ñi fi nekk moom amatuñu taxawaay parce que amatuñu lu ñu mun a wane ci làmb déjà ils ont trop duré actuellement ay usure de pouvoir baaxul tey li ñu làmb ji demee nii ñun yàgg nañu alerté donc li ñu doon wax daaw ak daaw jéeg moo ñëw rek mënatuñu dem nit nag bu ñu la dénkee ba mënatul dem da nga war a am benn franchise bu nekk si yow nga bàyyi jox ñeneen mais toog bañ a du dem ministre di la jàppale loolu moo yàq làmb ji tey. mais pour làmb ji dox maa ngi leen koy wax di leen ko waxaat il faut ñuy dem ñeneen ñëw loolu rek moo mën a dox làmb mais tant que ñu fi làmb ji dox. est stade bu mel ne arène nationale bi président defalal ñu ko ngir mbëru làmb yi làmb war naa toll ci ci diggante na dem bu mu dem na toog est-ce que jar na ñuy xaar di bay bay weñaari loxo nit. di di di nangu li nga xamante ne moom lañ ko dénkoon surtout waa làmb. damay wax rek dëgg la tax dama ne stade bi saa yoo fi duggee ngay kontaan. saa yoo fi duggee rek vraiment da ngay am da ngay kontaan parce que tey jii lii xeex nañ ko presque cinquante ans muy doog am kon tey ki fi nekk tey muy ministre yi ba ni may wax yow ni mënal gu inauguré arène nationale bi bu ñu waxee rek inauguré ko parce que dafa amoon loo xam ne dafa juddu woon muy collectif bi ak association des lutteurs doon am lu ñuy xeex mais bañ koy xeex ministre bi tegu ko woon si loo xam ne si yoon la ko tegoon d ko defoon pour écraser certaines personnes mais loolu mu dama ne gis lu mu ña koy wax lu mu ndaw ndaw ndaw ña des nañ doon dëkk waaye juróo ñu ndaw ñi ñoo mu a remporter la taay actuellement loolu am pour làmb ji dox ñi nañ dem daal ñeneen ñëw man loolu laay wax te li ma wax ni fu leer laa ko teg. kilifa la ci làmb jërëjëf per Kayra kilifa la ci làmb doyen la ci làmb takk na ngemb ba tekki ngembam yor ay xale bu waxee loolu jaadu na ci làmb kon sëñ Bass dégg nga bu baax li papa bu koy Kayra wax làmba ngi noonu kaay. <laughs> cey làmb Basiru kaay dañoo am xam-xam arum benn naabi la barke Serigne Saliou loolu rakkam wayal nañ ko saa yata yata waaw waaw sëñ Basiiru borom mbég meeg taar bi Bébé Diène noonu waaw doom yaay nga ko ci loole sant yàlla baax baax xuloo waale bi dañoo xuloo bay doog a du mos a xuloo ak yàlla moo boole yow sama rakk nga quoi la ma la daan wax rek laa lay wax nee naa sa papa li mu def ci man dafa bare xam nag bëñ ak ñoo ànd mais bu ñu am bu ko liggéey nekk mais yow duma la mos a aduna ci àdduna barke sëñ Fallou Mbacke te olof Ndiaye nee na kuy wàlliyaan sa dëkk dafa neexul la ma nar a dem wute ci àll ba tam am sama koñ yow nga yor ko fan laa jëm sama waay nga da ngaa baax Kalso tey ma ñëw fekk la ci ci meekaay bébé seen diggante yéen ñaar lan la non bébé jën sama sama rakk la sama xarit la sama lépp la bu ñëwee Gambie sama kër la ñu nekk yow xam nga ci dara parce que fekk nga leen fa. fekk naa leen Gambie. waaw yow fekk nga leen Gambie yow xam nga ci dara moom ak soq mi war a bëre suba yëpp heure bu ñëwee Gambie ci man la ñu nekk lool moom moo tax ma bàyyi sama yite yëpp ñëw mais xam nga ne man yow boo waxee sa akula taala xam nga ne man gën naa dem ci làmb waaw mais moom mi li ma jaral ak sox li ma jaral moom moo tax ma bàyyi sama yëpp d'accord moom ti mu nekk booy boo xam si booy bu baax la benn problème loolu moo tax ma bàyyi sama lépp ma ñëw. mais vraiment man dama rus sax parce que li nga def nii. ah waay nga da ngaa man ak yow benn lañ bul jooy sama doomu day benn nga da ngaa baax sa xol daa rafet bul jooy bul jooy man maay sa rak maay sa xarit maay sa lépp boo jooyee sama xol day tooy barki yonent bi da bëgg sama garaa nga bul jooy wuy ma bàyyi jooy léegi sa diggante soq président de la république daa jëlee benn décret nee na combat bi suba du am. bul jooy jooy sama doom day la bul jooy na Serigne Touba da siy génn léegi jox ñu lépp banqué ñu dara billaa wallaa lépp moo koy jënd barke Serigne Touba waaw dañu wax nag chaque jour dañu nemmeexu waaw waa Gambie yëpp maa leen di nuyu ku mel ne ñoom Kounda gaa yëpp waaw waaw. Kalso président dafa am benn décret bu wàcc léegi président de la république nee na dañuy dakkal bépp manifestation boo xamante ni dafa am. ba combat soq bi nga xamante ne dañ ko doon waajal suba moo gàmm gay du mujjee am yëg nga ko. waaw léegi promoteur bi Baba Diaw bi ñëw la ñu fekk fii ci bunt bi léegi fekk nañu bunt bi ñu wax ñu ko fekk boobu maa ngi wax ak mbay Mbaye mais ñaari ndam lañ naroon am tey première bi mooy tey deuxième bi moo nekkoon suba. sa waay combat bi bu soobee suñu borom day jàpp waa ji daan suba sox dafa noroon jàpp waa daan mais gis nga yàlla li mu def kenn mun ci dara yàlla lu mu def rek nit mun ci dara lépp lu jiit suñu judd la mais président de la république li mu def tamit dafa def loo xam si liy yoon parce que comme feebar dafa am ligue des champions bi nga xam ne moom moo nekk moom la nit ñi di seetaan mu nekk ci na bi yëpp dañ ko arrêté waaw mais nag Djily Fall benn affaire nag laa lay man sama yaram dafa sama xaftaan tooy na de. dinaa ñëw ci sa yaram ba pare. léegi mu am beneen combat ñeneen ñoo xamante ni ñett lañu woon. Bébé Diène euh, soq ak caatu yaraax. combat caatu yaraax gisuma la gisuma la ci open press seen diggante daal la. non caatu yaraax aw maag moom benn problème ni ma jàppe Bébé Diène ak ni ma jàppee euh, soq rek laa ko jàppee caatu yaraax bi mu bëree boo dafa ma fekk Gambie sama jabar ñëw loolu moom moo tax ñëwuma. mais bu fekkoon dama fekkoon sama jabar ñibbi damay bàyyi yëpp ma ñëw euh, bu loolu weesoo tamit maa ngi jaale àddina bi ñëpp sama sëriñ sëñ Abdourahmane Fall Tilala. dëgg la sa sëriñ la waaw nit ñi waruñu ko fàtte. kii rek yéen a ànd dem. nit ñi waruñu ko fàtte Tilala dafa am lu mu def ci jaam ñi fii maa ngi jël njaam euh, jaale bi nag ma jaarale ko ci euh, xalifa général am di sëñ Abdou sëñ mu yëkkati jaal yooyu mu jox ko rakam sëñ Fall Fall Tilala bu ma jóge waate foofu maa ngi leen di sant di leen di gërëm yow yaag sa caméraman ma bi sëñ Basirou maa ngi ñaan yàlla na yàlla saxal seen liggéey bi sen bii dem ba nekk télé bu mag àdduna bi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di koy seetaan ñëpp di ko seetaan kii di sama rakk ji di bébé jeen maa ngi ñaan yàlla na ko yàlla may ndam ndam lu sedd guy te bu soobee seen borom da koy am parce que dafa baax. dégg naa bàyyi nga bëre. non non non non munu maa dama damay waaj nag ba non bëre bàyyi ko. instant bi dama am euh, dama am contrat MMA dama la ko fàtte wax MMA am naa ci contrat xam nga waxoon naa la ko ba nga defee man euh, nu mu tudd da nga defoon ak man bi nga defee ak man ak euh, émission ca parcelle bi nga ma laajee man la entraîné ma yi may entraîné lamb taxul MMA moo tax may sama jawar heureusement mujj na ma wutal combat MMA ba incha allahu rabi bu ma ko defulee julaay dinaa ko def auguste incha allah ca Angleterre bu neexee suñu borom. li may entraîné lamb ji taxul de. parce que nee naa la quatre victoire maa ngi moom mais quatre victoire dama koy jël ma bàyyi eggale ko bitim réew. ay ca ay ca saaf yaa ngi noonu liggéey ci làmb ndeysaan boo xoolee Babacar a ngi noonu ànd ak Baye Balla Mbuub gaa yaa noonu ndeysaan jigéen ñaa ngi noonu li wolof naan góor baax na jigéen baax na ñëpp a ngi ci làmb ji bas ñii ñooy presse fii la ñuy taxaw information bu ngeen bëgg ci làmb ñii ñoo koy jox moo xam muy taw moo xam muy naaj moo xam muy guddi moo xam muy bëccëg lépp ngir bëgg seen réew doon ci réew moo xamante ni réew muy jël premier la ci wàllu presse ñée ngi nii xoolal ba xaadim adda sek xoolal ba gars yi ngi nii ndeysaan suñu grand ngi na le nga xamante ni ndeysaan ku baax la grand taalaa ngi noonu ci presse bi la bokk suñu doyen la ndeysaan kilifa la ci presse moom grand taala ndeysaan Mouhamed a ngi nii ndeysaan bu xofet a ngi loolu gaa loolu jëm Fils de loolu <laughs> Fils de Balla nag bokkul ci la buy bëre waaye képp koo xamante ne ñu ngi noonu ndeysaan xoolal Xaadim Anta Seck promoteur futur promoteur bi. maa lay ziare moom nag. naka yi tey. sant Serigne Touba. maa ngi sant alhamdulilah. ndeysaan keroog dégg nañ la macha allah. nga wax wax bu am solo keroog ci suñu làmb ñu tiitre ko nga doon xale boo xamante ne am nga gëm-gëm waaye am nga ambition sa secret lal la. sant yàlla jox ñëpp cër di sant yàlla rek di sant yàlla di santa sama yaay sant yàlla sant yàlla alhamdulilah sant xaadim anta jili moo ne moo frère Basirou jërëjëf sëñ Bass Kaay ñu ngi présenté combat bi. laa bëgg wax pour nit ñi bàyyi la xel. déggoo li ma la wax nit ñi bàyyi la xel nga bëgg ci làmb ji sama digganteeg yow du wax jëf la barki maam Seera Fall te kenn du fay wax bàyyi ba jëf. yow waxal del wax loolu nga am. wax ji yaa ko am làmb ji booba léegi yaa ngi wax del ratatati barki maam Seera Fall sama làmb buñ taxawee maag yow boo dëggalee sa bopp boo ame une minute bëri na. dooleegi ngay wax lu la neex rek. moo yow. dooleegi tapal nga yow tapal nga barki Serigne Touba moo la jàppe teg lu métti yow. te ñëw wax lu métti. yow yàlla yàlla sàkkagul doomu aadama bu may teg lu métti. yow déglu ma ñeme wax lu métti. bu bënd ba wuree fii barki. ñeme wax lu métti. boo wanewul ginnaaw ma xaaj. yow boo wanewul ginnaaw ma xaaj. bëriwul xale bëriwul xale. yow xale nga ci man xale nga ci man. waaw baax na buñ dul leer naa la wax buñ dul jublu xale nga man yow nii la nit ñi rek ba ci maam Serafal bu duggee ci biir géew bi xale yow ci biir géew bi buñ duggee ci biir géew bi duñ daa waroon doon léegi léegi nga xam ni li ma foog moo am ma saam wax naa la ko cameraman bu mag bi kenn du fi mu toll nii lamb dafa doon loo xamante ni dañ koo bëgg lamb suñu sport la lamb waaye ko wax mu ne maa ngi leen seetaan wasaare làmb jéego yi ngeen di def jëm ca kanam gis naa Ouzin liggéey bu rafet bi gis naa sëñ Basiru jiili nag moom dongo la léeg gis nañ ko waaye lépp rek xam naa ni yéen la wolof nee na doolay jën ndox doolay waykat public waaye doolay wasaare làmb entente bi ñu am suñu biir la déggoo bi ñëpp doon benn lan mooy secret wasaare làmb baa jiili liggéey kase ndax boo xoolee wasaare bi mu yegg seeg léegi yàggul waaye marqué day empreinte ba ku ne xam na làmb képp kuy dund làmb ku nekk boo bëggee information wasaare làmb ngay dem kon ñuy a équipe bi yëpp di gërëm Baye Bas di gërëm Adama Baye Djili Ousin Fatima ñëpp ñoo leen di gërëm di gërëm nag borom bee bi ñoo koy nuyu di ko siyaar bu baax lépp moom la. borom États-Unis d'Amérique borom États-Unis bu ko waxee rek xel dina dal moom dana xam boppam. waaw moom nee na buñ buñ tudd tur nee na bés boo leen tuddee tur ma arrêté kon buñ tuddu tur ñoo ngi koy bàyyi xel bu baax a baax di ko siyaar di ko bége Baye Djili di la wax làmb. dafa am lu muy représenté fii Baye Djily boo xoolee sport yi bari na mais làmb la ñu am te ñun ñoo ko war a ko mu jëm ca kanam moo tax ñoo ngi ciy jàpp ak Wassare Làmb di ci def lépp lu ñu mën di wax ga yi bu ñu fàtte di abonné ni ñuy abonné ndax lépp lu ñu bëgg a xam lu xew ci làmb na ñëw Wassare Làmb fii lay xewee li sa papa Lamine Samba fi la murum li xoyom xoyomee waaye ma dooli lecc fii la glace gi di formé Baye Djily fii lañ koy yëngalee gësam <laughs> ñu koy dundee di fo ñi ñuy seetaan xam ne ñii ay xale lañ waaye dañuy fo fo bi nag fo la boo xamante ne dañoo yar ci yar ak teggin ak ak ak dal lépp rek ngir bëgg askan bi lépp lu ñu leen di digtal mu doon lu rafet mu doon lu image yu nice mu doon loo xamante ne chaque jour dañ may laaj seen image yi dafa set seen image yi dafa leer seen image yi lii lan mooy secret Wassare mu man leen liggéey rek ak am ñoo xamante ni dañoo jël lu toll nii jox ay xale yoo xamante ne macha allah fa xale yi daal ñu ngi noonu Ousin Diop. bàyyi ji ñu liggéey rek lañu xam foo xool fu laam am dem nañ fa bàyyi bas bàyyil bàyyil yi Baye Bass bàyyiwul Mbour Baye Bass bàyyiwul Fatick fu la am amu def fa man nee naa ko mooy mooy mooy bis bi Dakar dem dikk kenn du moom. Georges Defatina laa ko tuddee chaque jour rek bu départ jiili demal arène nationale maa ngi dem Joal maa ngi dem Fatick ma ne ko Georges tey fan la bu ne ma tey Dakar des fois ma ne ko Georges foo jëm mu ne ma dem na ma ne ko demati na waaye lépp liggéey la rek dem nañ Gambie dëkkal leen la fa am dem nañ Passy dëkkal leen la fa am dem ngeen Njaafat. dem nañ Caajaay ngeen dem. dem nañ Mbour. billaay tourné Yaxya Diop yi kii na ko. moo taxit amateurs yi daal ak téléspectateurs yi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm de di leen wax na nag cloche bu rouge bi nañ koy faral di bës. bi ngi leen wax li règlement bi nangook li mu bañ arbitre bi koy wax wax na Bébé Diène Fourrière nee na ko waaw wax na ak Fourrière Ousseyn arbitre bi laaj na ay siisam ndeysaan arbitre bi na samedi 14 mars 2020 arène nationale journée Assane Ndiaye Baol production moo ñu fi woo diggante Fourrière Bébé cokkaas nañ xeex ba Ousseyn combat ba ña ngay xeex ñoom ñaar combat bi amul round d'observation 19h47 la arbitre bi sifflé Bébé Diène ak Fourrière ña ngay xeex Ousseyn jàppante nañ ñoom ñaar. bàyyi ji kenn mooy sama mu nooyi Abida Souflé ba fetali tàq Bébé Diène Eh, Bébé Diène am na client tay de. Fourrière du ñeexu ñebe sëgg na door benn uppercut Bébé Diène a ngi bëree la bëgg Fourrière daa bëggoon xeex ak moom ñoom ñaar xam naa ni combat bi du yomb ñaari xale la ku nekk daa bëgg a daan déclencher jëm ci kaw Ouzin muy Bébé Diène muy Fourrière. baa Jili Bébé boo xoolee baa Jili Bébé Diène doole ji ma yaakaar ne moom la andi ci ah, ñoom ñaa xaw nañu neexoo bàyyi ji li neexoon nañ Ousseyn neexoon nañ ndax boo gisee bi ñu jàppantee rek ku nekk ñu pees moom tel na ko ah Fourrière doon na ko tànk Fourrière loolu mu def noonu baaxul Fourrière mii ragal naa ko bërëm bii am na bëre boo xamante ne mu ngi ci moom mu di ko nëbb moom Fourrière ndax ñu ci bari Bébé Diène lañ joxoon favori mais Fourrière mii nekk na koo xamante ne Ousseyn ah nañ ko seetaan de bàyyi ji man daf maa bet moom Fourrière Fourrière mii baa ji li daf maa ndax dama foogoon ne bu bi siflee dindi loxoom seen diggante ñoom ñaar kii di bébé jën day tàq ci kawam gauche droite taqarnaase mais boo xoolee bi bébé jën tàqee mu répondre bébé jën xam na ne am naa adversaire tay baa ji li ne woon naa la combat bi du yomb combat bi mënul gaaw ñoom ñaar dañoo tolloo ñoo ngi dóor bébé jën a ngi suuf bébé jën a ngi dóor su yaay fi mu jàpp dafa baax daa bëgg mu sigi zongale bébé jën mais bañ na am na lu naaw. protestant ba protestant wu kan la protestant bi. Bébé Diène la Bébé Diène ba. Bébé Diène na protestant. frère mi. sama xel na. ay loolu la. sama xel na baa ji. combat boo koy seetaan. sama xel na. ba mbër sax ki kan moo pare pour <laughs> li Assane Ndiaye di wax ne ñu ay amateur lañ mais baa ji ñun ay amateur lañ sama xel ñaaw na. dañoo xam lamb. sama xel ñaaw na. dara wari. xoolal Fourrière la def. am ku wari. Fourrière ngi jaay moom. ah nañ xool. arbitre bi woowaat leen. arbitre bi sifflé na baa jiili. daan arbitre bi sifflé na. Bébé Diène xeex. ña xeex K.O. K.O. ña xeex. Bébé Diène daw na sama xol sedd na sama xol sedd na Baye Djily. lii mooy tëj saison bi. eh Baye Djily combat bi mooy combat wu coronavirus. waaw waaw ma ne làmb xale. <laughs> maa gëm xale yu bëri. làmb xale. ndeysaan xale yaa ngi noonu eh, tenoo bu fi bañ a bëree xeex nañ xeex bi ma tenoo bu fi bañ a bëree bi xale yaa ngi bëree baa ji lii moo tax ponkal yi namatuñu combat bu mag ndeysaan Ousseyn yaa ngi wane seen bopp baa ji lii moo du loo rek su ma nee suba nga ne soq gaamu géy ndeysaan combat neex yàqu na eh, est ce que yàqu na baa ji lii waaw président joxe na décret combat mënul am suba baa ji li président waxul loolu ay Ousseyn bàyyi li ngay wax. bàyyi président wax lool de. déedéet bàyyi li ngay wax ko ba bu ñu jàngi. activité yëpp la ñu lépp. loo xamante ne xeetu manifestation la président nee na nañ ko ci réew. Ah. fii ba la 14 avril. kon grand combat baa ngi noonu. te Papa Sow sax. njort nu ne dinañ am le 5 avril xanaa après. kon grand combat baa ngi noonu. combat bi nag mooy combat boo xamante ni sëñ Bas dañ koy bëre rek jubali aju. téye ci ba après yàlla def saafara réew mi saafara mbooloo mi réew ci coronavirus bi ñu dellu si waat fii ci arène nationale. bàyyi loolu soo ko waxee dag may tiital. ndeysaan na nga noonu bébé Diène Fourrière. coronavirus bi ngay tudd. bàyyi naa ko kon. bébé ngi jàppante bébé Diène tey daa am client bébé Diène nam daan dirisé la daan wax sa taak sa koñ et sa gañ. waaye tey am na adversaire moom Bébé Diène. Fourrière xale la boo xamante ne Ouzin dafa am concentration ci làmb mais Fourrière ni nga koy gisee dafa sérieux fàqat na ko Fourrière mbaa lu mu nar Fourrière lu mu nar. Bébé Diène li mu def léegi baaxul. Fourrière mi simil naa ko sàppo Fourrière la ma waxoon ci combat bi yëpp gis naa ko. ne woon na ma ndiis bi ndiisam la buñ koo ko joxul da koy jëlal boppam waaye xaw ma dina ko jëlam déet waaye mu ngi ci tànk yi muy jëlee ay ndiisam. wax na ko de. du ñeexum ñebe benn xale moo fourrière mi ma gis nii. sama papa Kayre jug na sées bi. daa defati mën a nem su andee ay xale da leen teg ci xolam bàyyi ji lii doom dafa sax ci xol ndax boo xoolee kii di bébé Diène Diène Kayre doomam bi bëre tudd Diène moom la bébé Diène duppee boppam daanaka doomam la te gis nañ ko moom saa bu doomam di bëree du ànd ak sagom du seetaan sax làmb ji donte moo toog ci saison waaye bu ñu ko teewul dina ci digg géew moom moom Boy Kaïré ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax xale yaa ngi jàppante baay ji li Ousseyn xale yaa ngi jàppante Bébé Diène da ànde ngeñ di ko déglu combat bi nag bu yàggee damay ragal du avantage du Bébé ndax bu plaqué na ko Fourrière day bañ Bébé Diène combat bi du combat bu ñuy forcé combat la boo xamante ne dañ koy cons ndànk-ndànk Fourrière a ngay dóor ma ngay dóor Fourrière frère mi li ma gis ci combat bi est-ce que gis nga ko Baye Djili mooy lan Ousseyn ñoom ñaar boo xoolee dina man gis naa ci ku xaw ëpp doole ci ñoom ñaar ah Ousseyn loolu kan la du ma ko wax man da damaa jàpp ni ñoom ñaar ñoo tolloo doole fi mu toll nañu seetaan Baye Djili nañu seetaan Baye Djili doole ji am na fu muy feeñee jege nañ saako yi daal xam naa ni ñoom ñaar coono ngi commencé dugg Baye mbër bu yàggee tuuti dina am ku bàyyi ñoom ñaar. bébé dugg bàyyi jiili. bébé jéen a ngay pompé Ousseyn. coono nga commencé dugg bàyyi jiili ñoo ngi jàppante ñoom ñaar. ndeysaan li ñu bëre nag dafa yàgg. combat bi. ndeysaan ñu ngay bëre ñoom ñaar. ndeysaan fi mu toll nii. bëre nañ cinq minutes ña ngay bëre bëre nañ juróomi minutes yoo xamante ne amul taxaw. dañ koo attaqué rek dalante ñoom ñaar. dóoral ma dóor la ñu doo jàpp. bébé jéen a ngi koy puus. bébé jéen a ngi puus fourrière. fourrière yi jàpp di ko déglu Baye Djily Bébé Diène dafa war a taxawaat dafa war a taxawaayam jàkkaarloog Bébé Diène jànga jàkkaarloog fourrière joxaat ko cër bi mu am ndax boo xoolee Baye Djily moom mii di Bébé Diène damaa gis ne joxul cër fourrière te da ko jox cër xam na adversaire la am. waxoon naa ko Ousseyn avant di commencé nee naa fourrière mii ma gis am na benn concentration boo xamante ni mu ngi koy jox combat am na respect bu mu jox adversaire am Bébé Diène bu ko ko mbetteel mun na am ci combat bi gis nga Fourrière. Fourrière fi dóor baaxul. arbitre bi day àtte dóor baaxul. ah àtte ah, waaw waaw fi dóor baaxul. Fourrière fi mu dóor du dóoru kaay dóor. arbitre bi koy tere. président Alioune Sarr koy aaye. loo ci mën a dégg mooy xale yu bëre nañ bëre bi neex na xeex bi neex na. xaw leen fay de waaye jar na ko ñoom ñaar ñi. Kayre dugg na ci biir lu mu bëgg. sama papa Kayre daa bëgg a dugg ci biir géew bi. Bébé Diène ngay tekki nga waxoon coono daa dugg coono daa commencé feeñ ci làmb ji bàyyi ji ngay tekki sengoor yi léegi sëriñ bi am lay <laughs> waaw waaw léegi sëriñ bi na ko sengoor ba ma la joxoon lu munti xew waroo koo tekki <laughs> tax na ko mu dem ba Casamance yii mu jëlee Crissa tool maa ngi nuyu sama waa dëkk boobu di waalo est-ce que demul waalo sax moom mii Bébé Diène mun na koo jëlee sax Bambey dëkk Sëñ Bass Bambey Jurbel Jurbel Bambey taaxu la Bambey commando sama ponkal mi kenn moom lamb daal a ngi noonu bébé Diène baa ngi noonu di dem ñoom ñaari xale yaa nga noonu ci làmb ji bébé Diène Fourrière arbitre bee ngi noonu di wax ak ñoom ñaar avertissement Fourrière nee nañ ko fi nga dóor waroo faa bi sifflé waat na Ousseyn Ndeysaan ak ki nga xamante ni mooy bébé Diène. bébé Diène la ma la waxoon moom lay def. ah lan la. waaw une observation dina ci làmb ji ndax jàppante nañu ku ne xam na sa morom la muy saf ku ci nekk di nga taxaw déglu lii combat bi ba mu leer nga doog a dem bàyyi noonu la deme Ouzin combat bi ba mu leer fi mu toll nii ñu dem ñoom ñaar ku ci nekk day téewaat boppam day téye boppam ndeysaan ñoom ñaar ku ci nekk day téye boppam ña nga ca combat bi. Fourrière Bébé Diène xale yi bàyyi ji doole eh làmb. dañoo tolloo bëre ña ngay bëre. tolloo nañ doole ña bëre. mën na ko cay làmb. soo lambee daj mu neex. cokkaas na Bébé Diène na Ousseyn. Bébé Diène Bébé xale yaa ngi ci digg géew bi ah, ah Assane Ndiaye woo su ma suma ma su ma neexee ma ne saison bi day pause. ña ngay dóor dóor mu daanu mbaa du am ña xeex dóor mu daanu mbaa du am dóor na jël na ko ña ngay bëre ña ngay bëre ma ngay mbaa du am do protestant bébé Diène ma ngay yàbbu protestant bi rek ah waaw lii lan la baa ji lee sax xale yi tàmm leen sol protestant bu ñuy am déedéet bébé Diène moom li muy simi yàbbi protestant bi bari na bari na loolu ba ñoo nga noonu dem na ci cimikaay bi Bébé Diène a nga noonu déggal nee na supporter Fourrière yi kaay leen ña ngay xeex xeex bu metti ñoom ñaar mais bàyyi jili Fourrière lim xeex léegi teg ko ci dëgg teg ko ci yoon non daa dóor ku Bébé Diène bëgg a jël tànkam mu daw def rotation dawul pour génn làmb ji mais daa pivoté Ousseyn pivoté bi jaar na yoon de loolu nga gis man pour man de ragaloon day bu bu continué woon tuuti bu duggee ci axe Bébé Diène Bébé Diène koy dóoraat beneen coup bu daloon day daal mais est-ce que xam nga ne xale yi dañoo privilégier xeex bi waaw dañoo privilégier xeex bi oh. xale yi dañoo ñemente ñoom ñaar xaw ma la moo nekk seen diggante waaye règlement de compte am na ci mooy ku ci nekk li ma la waxoon sànq Ousseyn kii mbër gox la kii mbër gox la kii dëkk Grand Yoff kii dëkk Rëbës ku ci nekk daa bëgg a génn te pour ñu génn combat bi mooy seen combat déclassement ndax damaa xam ne ñoom ñaar mën ñoo bëre mais ba léegi bërëb duñ ko jël te kon nee ñoom ñaari xeex moo tax ma ne ma ma ne am na lu nekk ci biir. Bébé Diène. Fourrière. fi mu toll nii Ousseyn mënatul def dara. loxo yi gu coono daa dugg baa ji li waxoon naa la ko. ñu lewtowee jàppante bàyyante coono dugg na. Oh. Fourrière dem na ba daa wàccee garde bi. ku bu ko dóor day dugg. Bébé Diène tamit bu jeexalul woon am na nu muy attaqué Fourrière mu dóor mu daanu sax mën na ci combat Baye Djili Fourier pare na ci làmb ji. pare na waaye bébé jën bébé jën tamit Ousseyn sonn na de. oh bébé ko léegi ku ci biir bi ñoom ñaar joxe nañ lépp lu ñu amoon Baye ñii desalatuñu Assane ñaar dara amateur kontaan nañ supporter seen xol sedd na. en daal xaw ma kan moo ñemee wax mystique jàpp na ma waaye du ñaari mbër yi ña ngay xeex doorante nañ jàpp na taxabal bi bañ na bébé jën taxabal na ko bañ. oh ndeysaan mu ne lan sëñ Bas. jàpp noppalu rek. mooy laa bu ji fi mu toll ah ñoom ñëpp sonn nañ kenn ñemeetu la jël risque dañuy jàpp noppalu rek ku def faux pas sa daan la buñ ñu defut faux pas ñu buuxante dem ba ci saaku yi tafu. mot na ko mot na ko bébé Diène mbaa du mujjee jaay combat am Fourrière xoolal tànk ba fam koy teg waa xale yi lu ñuy bëree nii sëñ Bas ah Ousseyn xoolal ma xale yi la ñuy bëree. waaye coono daa dugg. mais boo xoolee ñoom ñaar ba tey am nañ résistance kii di Bébé li muy def di ko forcer na ko oytu ndax kii di Fourrière néewul doole te xam naa ne am na résistance Bébé Diène jox cër adversaire am moom Baye Djili Bébé Diène man de li jaaxal oh Bébé tur jël bi lu may jox rotation naag moom lan la Balla Balla Gaye Ousmane Diop daa wàcc fractionné daw tuur ko moom mii di Bébé daan na ko jël bu daan na Fourrière Bébé Diène daan na Fourrière jàpp na ko rotation ak moom ko mu daanu ci suuf sonn daa sonn Fourrière daa joxe lu mu am Bébé tamit sonn na waaw làmb boo moytu mbër dina fi faatu xoolal Fourrière coup yi mu jël coono gi mu sonn ci làmb ji daanu na au lieu que coach bi daw ñëw si moom jëm koo soutenir xool lan moo manqué ci moom bu dee ndox la ñu renforcer ko jéem koo yëkkati mais dañ koo bàyyi mu daanu di forcer di yëkkatiwaat boppam mais athlète da nga koy jàppale ba muy jeex même bu ñu ko daanee dawal gaaw yaa war a njëkk ci assiste ko war a koo bàyyi moom muy téye boppam. jërë ngeen jëf mbokk a ngi noonu ndeysaan bëre bi bëre bi Bébé Diène bëre bi lan la sant tay gis naa baskaay eh! ci kaw rek te gisagu leen dara parce que nangu na entraîné il est sérieux de combat bi daf ñu jaraloon lu ne parce que premier grand combat am la dafa amoon dafa amoon dafa amoon importance ci carrière mais nañ leen dem ci ngeen comprendre écurie Soumbédioune Soumbédioune di ngeen gis beneen écurie incha allah. perkay li ma jaaxal. mooy li ma dem rek li ma jaaxal. xale yi di bëre. doo toog doo taxaw maa la gis yaa ngi jóg yaa ngi toog. yaa ngi def lu xale yi ñoo xale bëgg. ma ma def leen ko sama comme sama ay doom ay complice lañu man ak ñoom moo ta suñu bëree man du ma du ma toog ay complice lañu. mais père boo leen fekkee sax day mel ni wax ñoom ñoo ma jur. waaw loolu moo xam nga <laughs> mbokk yi noonu lañ leen di tàggoo ci li nga xamante ne mooy comba bi dox ci diggante Bébé Diène ak Fourrière Ousseyn gis nga ni combat bi demee. bàyyi jiir xale yi bëri nañ bëri nañu xeex nañu kii di kii di boo xoolee dafa dem ba ci biir làmb ji mu xaw a jeexal moom Fourrière moo tax boo xoolee am na résistance mais làmb ji Bébé Diène dafa mel ni moo gën a am coffre tuuti ndax boo xoolee dafa dem ba ñu dañoo jeexal mu mel ni ku ko fàq ba muy jógaat mu daw mu daw flexionné pivoté dóor ko man moo xoolee kele boobu dafa sama xel day dem ci Balla Gaye Ousmane Diop bàyyi jiile jël bu rëy la ko daan moom Bébé Diène daan na Fourrière carrière Bébé Diène la nañ ko bàyyi xel la te daa bokk ci làmb Euh, waa Soumbédioune dafa am fu ñu ko teg te moom gëm na loolu ndax boo xoolee lu simple yi chaque jour da ciy dem di si participer mbër yu mag yi bàyyi leen ko xel ku ko ci mën a jël na ko jël léegi su doole ji yokkoo xel mi yokk xel xel mi su doole ji yokkoo fit bi yokk xel mi daal du neex a jëflanteel bàyyi ji li Fourrière tey wane na leneen loo xamante ni ndeysaan ñàkk a ñëw rek mu ñàkk waaye jàmbaar la ndax euh, wane na jom wane na fula wane na fayda ba keroog muy ñàkk làmbam kenn du ko wax moom Fourrière la waroon ci làmb ji def na ko bi mu simee ko képp ku àndoon moom soxol sedd na. abi bi sifla na teggi abi bi teggi na loxoom seen diggante mu dox dóorante ak moom bëre na xeex na mais il n'a pas de mérité na dem defaru di waat takkaat ngemb yi takkaat jaaj yi dugaat ci biir géej gi wutaat doole te waajaat ñëw làmb jeexul baay ji li ngeen jëf mbokk yi làmb jeexul dégg ngeen li nga xamante ne moom la Ousin wax mbokk yi noonu leen di tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqalikoo ba léegi incha allah ci beneen xew làmb jërëjëf Ousin jërëjëf Baye Djili kontaan nañu Basiru jaajëf aja